Monsieur le ministre des collectivités territoriales, s'il vous plaît, pouvez-vous actionner votre casque parce que je vais m'exprimer en, en Jola. Euh, kupaalom ku tuyom ku ñoolom karibiñona jonde safu ni lobu mati euh, nunu puram di le conseil régional nu jaar départementalisation parce que noona sen mati conseil régional e teteb Diouf parce que c'était Oussouye Bignona et Ziguinchor ñeɗi kan département man kan annonceandi département ya nu topoto cokor mo kana mati département ya mais na ringlom tom nitu ka juk mati le département bi ñona e kankan 19 commune 19 communes sanu manje ujike jak ya baba incohérence redia incohérence woni man manko tingum leemo tu prends la commune de Tangori Tangori awɓe kanno ken tu entres dans Bignona nous pour Bignona nous lañuno ken Tangori donc c'est des incohérences sanu manje sosto donc jaar won won kan woni intercommunalité intercommunalité woni bukana ku kan tokon manko ngol ku teb des projets ensemble ni rek mati le département e badjut fiscalité nen badjut fiscalité propre fonds de dotation keb yan état senem yo bukana ku ratem biyo ni jodi les salaires les adjoints au maire et les vice-présidents de conseil départemental donc nu mañ mati wa fulebo jaar pratiquement koku kanem rokop tout mais à l'arrivée ku yejerit won won ni rek matti la rénovation du conseil départemental Bignona Ndiombo que remercier le ministre ati la ati les collectivités territoriales parce que ati la rambelu sunken nan kani le, le plaidoyer manku jo ku lañ ku prene koré manku jonen le département ne mané lañ me la ko bâtiment et la ko encore à neuf ni deju di wan monsieur le ministre aregum fa nak mati y a un projet de développement économique de la Casamance ni ci manti est-ce un projet de plus il y le ministère Yeti Équité, Yanoumanye, Ebabak Puma, Ebabak PUDC. Mokani Mamkoukan, une articulation des projets Sanoumanye, Sidjaou, encadrement. Samikan, Wafan Manye, Ejaouba, man Mankan Tokon, Mankan vraiment pour une meilleure efficacité du camp du projet Sanoumanye Pansilan Sidjaou, Fotou. Directement, au niveau Baba Sindé, la coopération décentralisée, Diallo Mané Ramben, Bukanak manque moo leen ku teb les territoires parce que écoré leen parce que ce sont des communes rurales ku bajut na ku bajut semba ci la tebe le développement ñuy remercier vraiment monsieur le ministre di enda kajante nag xanande kajante nag les plaidoyers di ko duwa poret ma na ateb poret euh, enda le ministère yangi ko confié voilà merci beaucoup